alors léegi puisque build nañ Bitcoin Core étape bi si mooy tester tester ndax suñu nœud bi build nañ ko bu baax mais aussi tester fonctionnalité yi nekk si nœud bi pour loolu am na benn dossier test bu existé si repo bi léegi dañuy dem dugg xool la moo nekk ci biir euh, ah, voilà suñ duggee ci biir lan la ñu am fii lu ñu fi intéressé mooy le dossier fonctionnel test fonctionnel maanaam tester fonction wu nœud bi suñ duggee ci biir bon voilà lañ mën a gis plus de deux cent tests yëpp ñu bind leen en Python moo tax ngeen gis extension point py bi léegi par exemple test bii di exemple underscore test dot mu mosoon nañ leen si wax si benn vidéo précédente lii la ñu seen ko laajoon ñu modifier mën a dugg seen programme bi moom si la amoon ay nœud zéro nœud un nœud deux ñu waroon mais lii c'est c'est c'est un bon test après nga am fee estimation date PI donc bii day test fonctionnalité bi permettre nit yi ñu mën a choisir frais ñuy fay suñu buggee yónnee benn transaction donc lii tamit c'est très important il faut mu jàll ko sinon ça veut dire quelque chose qui va pas après lan lañ amaat encore am nañ même pool bi même pool accept donc même pool mooy endroit bi nga xam ni transaction bi soo koy doog a yónnee en attendant muy dugg si benn bloc foofu lay dem di xaar mais aussi en attendant ñeneen ñëpp di si jot di ci valider aussi P2P ad bi bi ça permet de tester fonctionnalité bi nga xam ni mooy permettre nit ki mu ajouter benn nœud euh, comme paire ci nëwam fii bloc only bi am nga ay nœud yoo xam ni ñoom buñ def lu dul jàllale bloc yi et parfois il est important nga am ci benn wala ñaar yu connecté wu yow sën donc test bi nii moom lay tester invalide bloc yi ba comme le nom l'indique day tester est-ce que yow sën il est capable de détecter bloc yu yi de sorte que duñ la nax parce que am na ay attaques yoo xam ne bitcoin c'est basé dessus. Après, qu'est-ce qu'on a encore Create multisig API. Donc multisig mooy portefeuille yooyu nga xam ni tu as besoin de plusieurs signatures maanaam nit ku am benn hardware benn software wallet mu soxla signature yu ñaari wallet yëpp pour mën a yónnee lii moom lay tester. après am na yeneen test su fekkee bëri na balaa leen si mën a wax rapidement adresse type yi waaye. que Bitcoin dafa am différents types d'adresses yu existé am na yu ñu woowee legacy am na ay adresse segwit bientôt dina am ay adresse taproot après test bi ça te permet de vérifier fonctionnalité wu créer portefeuille yi bii tamit créer transaction yi bii nii mooy créer portefeuille yi donc toujours ñu ngi si liste bi pour yóodee je ni ku def test yi nii mu jàll ça veut dire que yow instant bi nii sën na c'est bon sa fonction léegi nag au lieu nit ki di dérouler test yi nii yëpp benn par benn am nga lu ñuy woowe test underscore runner dot pi bi ku ko lancé dafay dérouler test yi nii yëpp ngeen di gis benn par benn après mu jox leen benn genre résultat ak te li ñuy def mooy dañ koy dem jéem a lancé léegi nii Là, Python 3. ok du instant yi nii lan la ñuy njëkk a am ay test unitaire yu gars yi déroulé après li ngeen di njëkk a gis mooy déjà numéro test bi à gauche ban test lañu déroulé à droite résultat donc fii nii mu ngeen remarqué premier yi dañoo def skip skip mooy gars yi leen sauté maanaam dañ leen ignoré la moo ko waral mooy que par exemple ñaari premier test yi nii ça touche les descripteurs donc descripteurs yi c'est un élément de bitcoin qui permet de décrire maanaam benn transaction wala décrire benn wallet te sort que euh, yow soo amee sa wallet par exemple la war a yónnee def utiliser descriptor day wax sa wallet nan la war a transaction fii nii tu comme vous le a plus de deux cent vingt il a deux cent vingt <laughs> tests donc déjà lu bëri la après mën nañ dem continuer di analyser loolu loolu si vidéo bi